xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaane daara ju mag jot bëri na réewu Afrique yoo xam ne ña ko tabax ña ko téye ña ko yëkkati fa lañ génnee école booba kenn mënut a tudd am njàngale te tuddoo ko kenn mënut a tudd am paj kenn mënut tudd yorum réew mbaa yorum dëkk te kenn mënut a nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo jàngale ci université yi mag yi kenn mun ta tudd bindkat yu mag yi te tuddoo ko kenn mënut a tudd théâtre kat yu mag yi tuddoo ko école boobu mooy école William Ponti William Ponti la ñuy waxtaanee tey ci xam sa démb xam sa tey ndax ko xamul sa démb sa ëllëg dana la réer sa tey da ci gëlëm William Ponti ñi ngi ko sosoon ci jamono bi fi tubaab bi nekkee ci dënd bi nga xam ne moom lañ tuddee woon Afrique sow jantu France muy AOF ñoo ngi ko sosoon nag ca Ndar ci biir Sénégal këyit wa ko sosoon nag këyit bu njiit li bindoon la di ab arrêté ñoo ngi ko bindoon ci ñaar fukki fan novembre ak ñeent ci atum 1903 booba dañoo xaajoon école bi ñaar xaaj bu njëkk bi moom jàngalekat yi jàngal gone yu ndaw yi muy instituteurs yi ñooñu la doon formé beneen bi nag ñi nga xam ne ñoo doon tekki waxi tubaab ci wolof ak di tekki wolof ci tubaab di interprète yi moom lay formé di formé waale it ñi nga xam ne ñooy fonctionnaire yu mag yi nekk ci administration bi ak chef yi di kilifa yi nga xam ne ñooy jiite gox yi waaye biñ ci tegee ñeenti at tekki ñeenti at muy 1907 ñu defaraat nu ñu tëggee école boobu ñi nga xam ne ñoo daan tekki wax ji ak ñi daan liggéey ci administration bi ak ñi nga xam ne ñooy chef yi ñooñu fan leen daan tàggatee ñu dindi ko ci école bi ñu ne bis tey kon école bi lenn rek moo koy tax a jóg mooy tàggat ñi jàngal gone yu ndaw yi nga xam ne amaguñ brevet ñu jàpp kon ne bañ ca tegaatee ay at di 1913 école ba ca lañ ko yóbbu gore ci wetu Dakar loola nag nekk école normale lu tàggat instituteurs yi maanaam ñiy jàngal gone yi ci Afrique sow jant tubaab bi noona nag lañ ko tuddee école William Ponty ci atum 1915 anu lu indi tur wi li indi tur mooy mooy Amédée William Merleau Ponty mi nga xam ne moom moo xalaatoon tëggaat gi ak yorin wi moom moo génnoon adduna ñu jël turam jox ko ko te mu nekkoon gouverneur généralu Afrique occidentale française AOF loola moo indi tur wi kon 1921 école bii di William Ponty dañ dañ ko boole ak école bi doon FEDER képp koo xam ne da ngay liggéey ci administration bi di jàppale nguur gi te nekk ci ñi gën a suufe ci liggéey bi yow fa lañ lay tàggatee waaye ñi nga xam ne danoo bëgg a def am pàcc ca école Dakar bu mag ba foofa lañ leen di waajale booba nag école William Ponty ñetti xaaj lañ ko xaaj xaaj bu njëkk bi mi ngi doon tàggat jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale fépp ci Afrique sow jant beneen xaaj bi moom ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci nguur gi ak njënd beneen xaaj bu des bi nag mooy ñetteel bi ñi nga xam ne dañuy nekk ci am pàcc William Ponty nag boo fa daan bëgg a dugg dañ daan tànn tànn bu métti te tànn booba dañ ko ubbi woon ci bépp ndongo boo xam ne yaa ngi ci école tubaab bi te yaa ngi ci école primaire supérieure ci AOF wala ci Togo waaye nag day fekk nga am diggante fukki at ak juróom ak ñaar fukki at boo fa duggee nag ñetti at nga fa daan def ñu la ci tàggat kon nañ jàpp ne ci 1938 la école bi jógee Gorée jóge boobu mu jógee gore nag dafa am lu mu indi ndax dañ koy indi ci barab boo xam ne la fay xew dafay rëy ña fay génnee dañuy am solo donte ña njëkk a génnee Gorée it am nañ solo ak ña génnee Ndar waaye li ñu bëgg a wax da ngeen ko xam ci kanam kon Sébikotane ñeen fukki kilomètre ak ñaar digganteem ak Dakar fa lañ ko samp mu gën a yaatu waaye nag yamut woon rek ci am ay néeg yu ñuy jàngale dafa amoon kàgg boo xam ne fa la ñuy denc téere yi amoon néeg boo xam ne ña daan tàppe lañ leen daan tàggatee amoon ay mbaar yoo xam ne fa lañ daan liggéeyee ak loxo ak ay néeg yoo xam ne fala la gone yi daan fanaan ñooña nag di gone yi amoon nañ barab bu yaatu boo xam ne seeni po fa lañ ko daan defee mu amoon ca nag foo xam ne am njiin daan ko fa daan def amit barab bu mag boo xam ne seeni kilip mënoon nañ ko fa wane 1933 école booba nekk na fi nga xam ne mbatit yëngu na fa dund na fa te loola ka ko jiite woon mooy directeur bañ tuddee woon Charles Béard nañu jàppit ne clip yi nga xam ne moom lañ fa tëgg yamut woon rek ci nooni clip gone yi dañ daan dellu seen i kër gëstu seen cosaan seen aada seen dëkk dëkkiin ak seen dundin daa di koy indiwaat ci biir école bi ñu jël ko tëgg ko ay clip kenn ku ne wan say moroom sa aada ak sa cosaan loola nag daana jéggi dayoo ba sax génn école bi ñeneen di ko gis. xam sa démb xam sa tey école William Ponticon mën naa fëgg dënnam ne man de kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo ŋànkoon Afrique soowu jant ñu ci bëri ci sama biir bii la ñu génnee ku ne maître Lamine Gueye William Ponty la génne nga ne kuy kooku ñu ne la premier président assemblée nationale Sénégal ginnaaw bi moomaatee boppam kooku nekkoon professeur doon jàngale mathématique xayma ak wañ ci atum 1920 laataa sax muy bàyyi loolu lépp mujj doonub avocat ñu fàttale ne moom Lamine Gueye boo moon ca caaro yi 1944 kon bu nu tuddee gone ya fa jànge dooni kilifa ëllëg dañuy joxañ président Houphouët-Boigny muy président bi nga xam ne moo njëkk a jiite Côte d'Ivoire te moo tax Côte voir doon réew mi mu doon ñu ne école William Ponty ana ñu fa génnee ñu ne kan mooy Modibo Keïta ñu ne mooy président bi njëkk bi Mali am ginnaaw bi moomee boppam ñu ne ana keneen ku fa génnee ñu ne Amani Diori ñu ne kuy kooku ñu ne mooy premier président bu Niger ana ku fa génneti ñu ne kuñ dul te tuddee ko mbedd yu yaay bërki démb Dakar kooka kana ñu ne xanaa Mamadou Dia mi nga xam ne moo njëkk a nekk président du conseil du gouvernement au Sénégal diggante 1958 ak 1962. ñu ne ak kan ñu ne ku njëkk a doon avocat bi jiite Sénégal ñu ne doomi Kébémer ja maître Abdoulaye wadd ñetteelu président wu Sénégal William Ponty la génnee waaye yemut foofa buñ jëlee ci mbirum taarix jël ci mbirum xam-xam jël ci mbirum mbind jël ci mbirum mbatit ana ku fa génnee ñu ne doomi Côte d'Ivoire ji mag ja Bernard Dadier ñu ne ak ñu ne borom. fenteef yu rafet ya Ousmane soose ma bindoon téere bi tudd Karim ak Mirage de Paris niiri Paris ana kan ñu ne Abdoulaye Sadji ana lu mbind ñu ne fent nettali ñu ne ban ñu ne Maymuna ak Nini mulâtresse du Sénégal ñu ne ak kan ñu ne taalifkat bu mag bi bindkatu clip bu mag bi ki nga xam ne mooy tëggkatu clip bu mag bi kokkane ñu ne foode Fodéba bu gine ki nga xam ne tey ballet africain yu siiw ya moo leen taxawaloon ñu ne ak kan ñu ne théâtre kat bu mag bi Douta Seck xanaa ku nekkoon Christophe ci tragédie du roi Christophe ki ñu tuddee Douta Seck gii ci Medina tey di këruk ñi yëngatu ci mbatit 1946 nag dañu jàpp ne école bi dañ koy tëggaat loolu moo tax ñi nga xam ne ñoo fay nekk ñu xaaj leen ñetti xaaj moo am ñoo xam ne buñ génnee ay jàngalekat la ñuy doon am ñii buñ génnee ay fajkat la ñuy doon war a dem nag ca école médecine africaine bu Dakar bu mag ba wala école vétérinaire ba nekk ko ngir mottali seenum njàng ñi ci des nag ñoom ñoo doon waajal seen bag ngir bu ñu amee bac dem jàng yi ca université yu mag ya nekk France 1951 nag ba mu jotee ca la Ponti nekk nag école normale rek nga xam ne njàngale rek lañ fay def léegi ban toogee ay at nag Sénégal moom boppam 1965 juróomi at buñ ca toppee ñu jël école bi yóbbu ko Thiès waaye booba it xoole ña fa génnee rek ñu ne ñii ñooy ñan ñu ne historien Mbaye Guèye bi nga xam ne ku dem université Cheikh Anta Diop laajte ko ñu joxoñ la ko ñu ne historien Mbaye Guèye boobu moo kan ñu ne xanaa bindkat bu mag bi professeur anglais bu mag bi Cheikh Aliou Ndaw ñu ne ak kan ñu ne Madior Diouf mi fi doonoon ministre Madior Diouf professeur littérature Madior Diouf mi jiite woon RND kon école normale William Ponty Thiès mi ngi mottali doxam ba mu booloo ak école normal régional bu mbuur ci 1983 lii mooy taarixu lii mooy jaar-jaaru école école normale William Ponty xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Goethe Institut